tey nag ki ñu dalal ki ñu dalal mooy maire Grand pap ma Madiop di wax ne fo affaireu faux billet baaxul si réew mi day yàq kom kom yàq économie rew donc nañu bayyi comme ci ngi loxol yoon yoon mi ngi xol li nga xamantene mom lañ ko jox mi ngi koy saytu nañu bayyi ba yoon daaneel ñu xam parce que su fekke ne li ñu wax la li flagrant délit la moy dañ ko japp ak sac donc mais ba léegi kenn mënu am certitude su liñ ko jàpp nañu bàyyi yoon yeggali liggéey donc man bokkuma si ñi nga xam ne ku ñu gis nit rek yéene ko lu ñaaw amaguñ lu leer yoon mi ngi doxal nañu bàyyi yoon doxal man ànduma ak Macky faruma ak Macky te mu ànd ak Macky Sall bu mukk kooku moom leer na mais man damay jàpp sama bopp comme ñeneen mang koy ñaanal dal ñu koy top. yalla bu ko def. ko du sax 10 mois fi depuis mars avril lañ commencé bâtiment bi campagne veille élection lañ ko daané donc xam nañ comme dañoo taxaw nañ toog rek ba xam ndax gis inauguration est-ce que nekkul ne dangay dañoo bëgg xaar ba campagne ñëw ñu bëgg koo inauguré wala yu mel noonu. ba tax ñu téye liggéey bi. ñu nekkoon si ñu fi leen dëkk man samay soxna fi la ñuy accouché si maternité bi la ñuy fi leen dëkk donc man lu ma fi def sama bopp laa ko defal lu la wër naa fekkee campagne yàlla xam ndax naa fekkee campagne wala déet li ma mën lépp naa ko liggéey def